jërëjëf mbokk internet yi bëri ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ak fay mën a ne dellusiwaat ak yéen ci beneen jotaayu xam-xam ki ma fi dalal xam ngeen ma ak moom nee naa la man ak moom depuis 2014 boobu wax dëgg yàlla maa ngi Sénégal muy borom xam-xam di jàmbaar wax dëgg yàlla bokk ñaankatu yàlla yi nga xam ne nag man damay wax man buur teel nañ ma samay tànk nag wax dëgg yàlla ak yonent bi di oustaz Mohamed Kandé ñu gën ko xamee ci oustaz Kandé vraiment di jàngale kar atu katu alquran di nitu daara waaye di boroom xam-xam bu extraordinaire euh, Oustaz ñoo ngi lay nuyu di la ziar di leen dokkeel bàyyi la nga néew ñu la sant ci bi euh, ci bi promédia ak buur Guewel. maa ngi lay fay buur. Hmm. hasbunallahu ni'mal mawla wa ni'man nasir. la xawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim. Hmm. bi xus bi xurmati allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. Hmm. Euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yenent bi. di gërëm suñu ñaari waajur di kilifa di jër gërëm kilifa diine yëpp. ak kilifa aada ku nekk ñu koy jox si wàccuwaayam. di la gërëm di gërëm internet yi. yàgg na ak ñoom di leen ne euh, li ñuy wax euh, jàmbaar dawul dafa wuti woon doole. Mhm. bismillah buur. mu ngi noonu jàmbaar dawul dafa wuti woon doole. Mhm. Euh, oustaz tey nag fi muy indiqué yow mooy ci point yu sensible la ku ne mhm. xam na ni. yéeg beeg wàcc bi conseil constitutionnel dialogue beeg finalement jàpp nañu def élection le vingt quatre. mars incha allah. waa waa Kër Sonko yi nag waa Pastef yi nee nañu yeewu xëdd woote. Mhm. ndogu jubilé waaye dafa mel ni Amadou Ba moom tamit taxawaayam mu ngi des di baax surtout ci wàllu ñaan yàlla. waaw jërëjëf buur euh, lu jëm ci wàllu foofu biddéew yi la. Mhm. xam nga ko xam biddéew dëgg dëgg dëgg dëgg doo gaaw a jubilé. Mm, ilmu nujum waaw ilmu nujum. Mm-hmm. bu doon nga xam ko. soo su la yàlla kashfalee loolu tuuti li ñuy wax kashf mu am lu mu la ci yëral. Mm-hmm. Euh, dafa am nooy àddoo. Mm-hmm. waaye jamono ji ñuy wax ni tembe tembe diggante. Euh, euh, euh, Bassirou Diomaye Bassirou Diomaye ak Amadou Ba mhm. seen biddéew ku nekk mhm. ku gën a taxaw gën a fagaru rek mhm. yaa ngi ci course bi waaye nag beneen course bi lu jëm ci wàllu amadu Ba ah taxaw na de mboq bi seetaanuñ ko de moo ngi renforcer te tam moo ngi ut tam ay renfort waaw parce que dafa mel ni que benn mbir boo xam ne bu nekk ci kanam kon benn baltansi ci ay xale ku la gën a dàq daw ngën la dëgër rek moo koy jot mm-hmm. fu mu nekk nii tembe tembe ñépp mën nañ ko jot mm-hmm. képp koo xam ne nekk na sa yitte ni nga ci sonnee juróomi at yi wala ñeenti at yi mm-hmm. ngay campagne wala ngay def pré campagne bu ba bëccëg bëgg nguur gi ba léegi sa biddéew moo ngi ci parce que élection la ci biir élection bul fàtte élection bu mel nii bu yi la bu mel ni gëj na fi am dëgg wala sax ñu ne gulet mu fi am moo tax nag ku nekk mën a nekk président de la république am na ñu nekk ci kanam seen biddéew moo gën a jege waaye ku ci farlu wala bëgg exemple candidat am gagné fu ci taxawee yàlla mën na ko ci defal sutura mu mun a egg fu mu yegg. ku ci nekk yàlla mën la wal sutura waaye sëriñ bi am na ay combat yu fi taxaw diggante Modou Lo Siteu ñu ngi koy coow waaye lu ci bëri ci sénégalais wala supporter Modou Lo yi d'accord ci dañu loolu du combat. Modou na def ndànk. Mm-hmm. na defee très attention. Mm-hmm. parce que Siteu nii moom Siteu dafa nekk ci benn benn mbartal. Mm-hmm. waaw waaw ci mbartal la nekk waaw ay mbiram ne yéeme ndax fi te ni mu jugee ci kaw dal ci combat royal waaw moo lay wan ne am na fu mu toog am na fu mu toog mhm. nitu Modou Lo yi mhm. bés bu nekk am nañ ko fi mhm. takkusaan bu nekk am nañ ko fi waaye nag li lay fàtt doo ko gis waaw li lay fàtt doo ko gis Modou am na cumukaay léegi indi na beneen stratégie boo xam ne yëpp da koy defee ci àll bi wala ñu defalee ko ci kër yi wala ñu defalee ko ci ëtt ba mm. du ko indaale na ko yokk mm. na ko yokk mm. Siteu nag ren mooy atam su bëggee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg am lu moromam ñu nga xam ñu bari li ñuy wut te amuñu ko fu taxawee bu soobee yàlla dina ko am man de Mouhamed Kande maa ngi koy wax fii di lancer défi su fekkee Siteu wala ay mbokk Siteu dëgg nañ ma fu ñu ma seetee si kattan yàlla suñu borom ma assuré leen victoire bi nga victoire bi te victoire bu leer lay doon boo xam ne du am benn werante benn tour laa mhm. sant laa benn numéro dëgg la de saa bu soobee yàlla suñu borom moom Siteu su fekkee woo na ma wala jege ñaale Siteu woo nañ ma te combat bi yitteel leen ma assuré mhm. leen kombaa bi diggante Sa Thiès Eumeu Sène loolu combat la ren mhm. ñoo xale yi ren ñoo aye xale yi ren ñoo aye ku ci sàgganee sa bopp nag jàpp ne que sa doole rek ngay demee mm-hmm. di nga juum waaw monsieur Dalag am ñaan de. waaw dafa sëñ falu nee na. Mm-hmm. ku xeeb. Mm-hmm. ku xeeb xal mu lakk sa daay. dëgg la de. ku bëgg a balaa ñu laa nee diwa da ngay diw. waaw da ngay diw waaw foo diwul doo nekk ci dara. dëgg la de. nga bëgg ko wala nga bañ ko. <laughs> xale laa wax bu fekkee dëggal nañ seen bopp. doole rek du dem su doole doon dem bombardier du daanu. dëgg la. su doon doon daan euh, euh, euh, daan Tyson du daanu. Mhm. waaye nag dafa am lu ci laxasu ci biir. loolu nag dafa taxaw dafa laaj benn taxawaay boo xam ne su fekkee sa yitte la ñun ñu ci mën a wax ci gàttal ñun dañ lay woo assuré la foo ñu woowee ñu déggoo yow ñu assuré la loolu amul benn werante. Balla Gaye de mi ñu jàppoon ni jeexal na. Balla jeexalagul Balla jeexalagul. Tapha Tine def très attention jàpp na ne que moom moo nekk ci performance parce que Balla. Mhm. dafa mujjee am défaite jóge ci défaite. Euh, mm. Tafatine jóge ci mm. victoire. victoire boobu nag lu mu doon defar benn na ko defar fukk. Mm. Balla mi nga gis nii noppi tek wax la. Mm-hmm. cumukaayam moom ko gën a defaraat. Mm-hmm. waaye nag bu mu fàttee am na sarax yoo xam ne moo koy yàqal moom Balla. mun na sangu mun nañ ko defee yeneen sang mais fa am sarax yoo xam ne daf koy xeeb. Mm-hmm. yooyu toujours moo koy indil gàllankoor. ñun de bu soobee yàlla sunu borom. képp koo xam ne woo nañ wala nga jege Balla nga woo ñuy waxtaan yow ci wàllu sarax bi soo ko defee incha allah rabbi di nga ci gis. te moom seen mbokk la waa Casamance diggante. ko la Casamance non du ñu ko seetaan lawoon fa woon rek. lawoon fa woon mu ngi noonu. oustaz ah. ñu ñëw ci dëgg-dëgg ñaan yàlla. Hmm. man bu dama ne contre naa ki taxaw ne. Hmm. gëmuma ñaan yàlla wala gëmuma dara. Hmm. fii yàlla rek moo fi ne. waaw waaw dëgg la xam nga nit moom bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër. Euh, ñaan. bu yàlla ne baadu us billahi min sheytaani rajim adu u nii la lakum xam nga boobu adu u bi foo ko seetee boobu pluriel la dafa woote ñëpp amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw képp koo xam ne sa yitte nekk na si mbir nga ñaan ko wakilu ci fu ko defee yàlla mën na la ci defal sutura mm-hmm. man nag xaw ma si jaam boo xam ne dafa doyloo boppam fii ñëpp yàlla lañu gëm ah, waaye yàlla su doon su doon gëm rek rek rek rek rek yàlla du fi indi ñaan su fekkoon da nga feebar bul dem pharmacie bul dem hôpital bul dem seeti gynéco bu dem seeti merce loolu nax sa bopp la te ñooñu la ci ëpp sax ay jaay lañu gëmuñ yàlla waaw nit ki nax sa bopp la foo nekk ak nag say moroom ak loo mënti mel ak loo leen di mënti xëccoo képp ku la gën a farlu ci boppam ginnaaw ñaanu waajur mhm. mu farlu ci boppam di wut ay ñaan loo leen njëkk loo leen xëccoo mu njëkk la ci jot mhm. benn werante nekku ci ñaan nag lu am la moo ñu téye fii moo mhm. téye réew bi nga xam ne si la ñu nekk amuñu wurus amuñu jamaa amuñu pétrole loolu barki dem ba léegi sax jëfandikoo ko. Mm. waaye ñaan képp ku génn ci réew mi réew mi tas. Mm-hmm. waaw mm-hmm. dëgg la de muy lu ama am solo waaye oustaz. Mm. Eh, waatul bu yotti mel ne ab waa bi mm. ñaare oustaz di dugg ci nit ki ñaanal ko. te seetul ay mbiram. waaw xam nga loolu li nga wax noonu kontaan naa ci. waatu abu waatul buyutu fi abwaabiha mooy lëf loo leen gis lu ne da leen dikkee fi nga koy war a dikkee soo leen ko dikkee fi ngeen ko war a dikkee yàlla mën na leen ci defal sutura ngeen egg li ngeen bëggoon li ngeen doon wut ngeen am ko eh, nit nag balaa nga koy ñaanal dëgg dëgg dëgg dëgg da ngay xam biddéewam mhm. nit ki mënoo xam biddéewam te seetaloo ko mhm. soo ko seetalee da ngay xam biddéewam di nga xam ne kii naari yu la wala maa iyu la mhm. wala turaabi yu foo jaar bi di nga ko xam su ko defee dafay mel ni que comme sa numéro rek su ma composé rek jot li ma bëgg ak loo mënti bëgg nag. Mhm. ak lépp lu nekk sa si yitte. muy soxna nga bëgg. muy da nga doon tukki tukki boo xam bëgg tukki tukki boo xam mu tëla. Mhm. mooy que danga amul njaboot. wala ka say soxna déggawuñ wala déggoo ko say soxna loolu yëpp bala nga koy defal doomu aadama faaw nga am ab yem. Mhm. kon seet bunt bu am solo la. ci am solo ci doomu aadama. mu bañ doon nag làmbatu. waaw nangam nga laaj ni ki seet. da ngay woo nit ki su la neexee sax nga jox ko sa tur rek nga yem ci. bokk ak nit ki wala ne la oustaz problème mu rek laa am nga ne xaaral bind rek. jox déedéet boobu dafa yomb loolu kay mooy ko dañ la ko may rek. Hmm. lu gën a simple mooy salaam man lii laa so diw laa tudd dama am soxla dama bëgg nga seetal ma yaa leen xam nag ci li ngeen déggoo. Hmm. boobaa nga déglu nit ki saa yu la waxee sa soxla won ko sa won ko sa soxla. Hmm. saa yu nekk wu di taaru taaru ne ko jërëf nga seeti keneen. Mm-hmm. ñun nag lu ñuy def ñame nañ ko ragaluñ ci làqatuñ ci fukk ñaar fukki at ñoo koy def mm-hmm. bi ñu commencé nag génn mot na ay juróom-ñetti at man 2014 laa <laughs> man fukki at loolu dañoo xool ne jamono ji pour dimbali jaan mi la jaam yi bu mm-hmm. fekkee dañoo yor ay jafe-jafe nga yor sa benn astur boo xam ne yàlla moo la ko dénk ci wàllu xam-xam nga toogaale nguufaan ci da ngaa war lu jaadu mooy que nga ñëw waxtaan ak askan wi parce que li la yàlla li la yàlla dénk yow ak askan yi la te kenn du mën a xam li nga toogaale ñun nag jaayowuñu lu ñu yor ñoo ngi ko yor lu ñu xam ñoo ngi ko xam parce que bi ñu koy wut kenn jàppalewuñ ci waaye nag pare nañ ci pour dimbali ci bépp doomu aadama boo xam ne am nga ci ay jafe-jafe nga ñëw seet si ni dañ jëflante yow te jëflante yow yàlla dañ ci fonk alquran loolu waaw xam nga mooy que mooy togg boo xam ne amul xorom mhm. togg faaw mu am xorom moo gis da ngay gis sax ñi doon def reen sax léegi ñoo ngi ci boolee alquran maa ngi leen di gis mhm. waaw ñi doon def tax sunguf rek ñoo ngi ciy boole alquran mhm. léegi nag su la yàlla dimbalee comme ñun jàng nañu alxuraan bi am na lu ñu ci miin te am na lu luñ ci gëstu te am na loo xam ne jox nañ ci tamit xam nga mun nga gëstu benn mbir fekk tamit joxuñu la ci izinu mhm. joxuñu la ci ndigal waaye ñun ñoo sant yàlla bu baax baax am nañ ci am nañ ci ndigal mooy mu tuuti parce que alxuraan amul dara lu tuuti mais lu barkeel lépp loo xam ne liggéey nañ dañ ci boole alxuraan fu ko defee lee fu ñu ko defee ci wàllu di ko mag ñi di defee ñu def ci alxuraan bi barkeel buñ ci tàmm mais souvent koy boole ak ay xeeti garab yoo xam ne yow xam nga garab bii lan laa ko war a mën a boore ci ay secret alquran mu faj bu dee ci ngóora bu dee ci problème mu rab la bu dee ku bëgg ubbeeku bu dee ku bëgg alal la bu dee ku bëgg ñu samp ko à chaque fois dama gis oustaz ay alquran yi ak li mu lim wala garab gi mu war a jël xam na naka la ñu composé ba mën a fajal nit aaj waaw loolu buur euh, ñu yàgg seetaan peut-être sama samay vidéo man ci àll bi laa ne mhm. foofu la kër gi ne foofu laay defee sama lépp Mm-hmm. amul benn garab boo xam ne dañ ma koy exporter wala ñu ma koy importer. Mm-hmm. man maa koy def dem defaree ko comme ni ñu ma ko jàngalee. te lu ci ëpp yàlla moom moo ci may sutura. diggante comme li ma la wax sànq li ma la ko jigéen joo xam da danga dem ba taxaw def nga say analise wala def nga dem nga clinique bu nekk. Mm-hmm. dem nga ba léegi euh, ba découragé pour ñu seet si kàttanu yàlla sunu borom ñu may la trois semaines. yàlla may la ci sutura benn ñaar ki nga xam ne exemple da bëgg a samp nga am benn entreprise boo xam ne yaa ngi koy tàmbali nga bëgg entreprise bokk ci entreprise yu ñuy gën a xëccoo wala yu ñuy gën a coow wala yu ñuy gën a a performance bu soobee yàlla sunu borom ñaari composition lañ koy def ginnaaw bi ñu la seetalee xool sa yi sarax yi nga war a nga génnee ko fu ñu ci defee defal nañ ko ñu bëri su fekkoon dafa am amoon ay espace de témoignage dina am ñoo xam ne dañu dugg fi témoigner yi nga xam ne defal nañ leen ko ci wàllu liggéey Euh, dëkk ba ba taay indi la fii. dëgg la dëkkal la. Mhm. yor la ci këram. Mhm. yor sa lépp. dëgg la nga jëflanteek moom. Mhm. mu gis boppam. te yàlla dafay dibal rek suba balaa nga fay jóge ci la nit ki di gis. satisfaction. loolu daf ma jaaxal trop trop. loolu amul benn werante fii ci ndakaaru am na fi partout wala ba ci biir biir réew mi. lu ko dal exemple ay Touba ba ay kaw Kaolack yëpp am na fi. da ngay jëflanteeg doomu aadama mu woon a ngeen jëflante eh, balaa nga fay jóge yàlla commencé def sutura. parce que ñun kenn moomu leen te dofuñu mm. waaw kenn moomu leen te dofuñu képp koo xam ne bàyyi tër nañ la bàyyi rek am na lu ñu ñam ci yow mm-hmm. te loolu moo ngi fi yàlla dénk nañ ci te tey dañoo dem a gën a gëstuwaat bu gën a yaatu mm-hmm. waaw oustaz ba tey mu ngi doon phénomène ah mm-hmm. gars yi ne dama am problème ngóor nga yëkkati reen wala saafara jox leen te alors li koy technique ki bari bokk na sax ba ci rab man fan yi ñi may jàmbat mooy buur man daal dama sentir ni sama awra dafay dellu rek gën a tuuti ba nekk awra xale waaw loolu ñun ñaari ñaari anam lañ ciy defee benn bi am nañ benn secret boo xam ne dañ ñëw ab dañu ñëw ci li koy faj ba pare après ñu demaat tamit ci yenn façon yu koy def secret bi lu weesuwul ñaari araf waaw yaakaar naa jamono ji du ma ne man rek maa ko am mm. waaye testé naa ko testé waat tamit ko si ñeneen mm. moom ngay jël nga jëf masalan nga def ko sa awra mm. comme ça saafara lay doon c'est fini jeex na da def li nga bëgg nga wàcc te te du wàccati du sunguf sooy naan du benn ko tegee ne ko tegee parce que a yokk képp koo xam ne am nga problème ngóor a foo ci kattan yàlla sunu borom ñaari araf ñun ko yor sunu secret la parce que dañ ko gëstu ji soo ko jëlee def ko sa kanam ci kattan yàlla sunu borom hmm. delluwaat jamais plus grand jamais ci gàttal mais kon loolu gën te gën te wóor waaw ah. xam nga reen yi bu waaw xam insuffisance rénale yeeg yu mel noonu waaw xam nga reen yi mënuñu ko bañ hmm. parce que tamit eh, yëpp ay xeetu faj la waaye dafa am catégorie un am catégorie deux am catégorie trois hmm. foo gisee koo xam ne day naan rek xaar ba ci kanam commencé tàkk ak ko hmm. xam ne da nga koy def éternellement mu continuer boobaa yooyaay choisir nga ba ban moo la ci gënal ñun daal bi ñu yor jamono ji bi ñuy jëfandikoo te testé ko gis nañ moom moo sonal askan bi benn araf la ñoo ñaari araf la dañ koy bind defal na ko saafara nga utiliser ko waaw beneen numéro la ñëpp defee yow di nga ñu woo di nga ñeen nii la mel wala nii la mel te xam naa ragal naa sax docteur yi ñoo seet si fu yàggee waaw mhm. ah, ragal oustaz la def ci rab waaw rab bi tamit loolu laa doon ñëw yenn saa rab da koy def mooy que yenn saa yi da sa soxna day am rab suñ la waxee faj ko nga ne ah loolu caaxaan la wala sa soxna dem si sëriñ seetal ko ne man de dañ damaa am rab mhm. ñu wax la ko nga ne ko noo man je m'en fous de ça te pourtant yow loolu ngay sàggane loolu lu am am am solo la si sa biir dund parce que tamit nekkin da nga war a tamit sentir sa bopp di mën a sëy ak sa soxna foo gisee jàmm ji ne ñooy di fekk sëy bi am fa su fa sëy bu amul kër gi du neex loo leen lekk-lekk du neex mm-hmm. li ngay xeeb xeeb nga nag sa xal mu lakk sa daay loolu da koy ñaareel bi da takk jabaru jàmbur koo xam ne yàgg na génn ak moom mm-hmm. mu nekk ci koñ bi di génn ak moom di génn ak moom moom nga jékki-jékki ñëw ak yow sa privilège nga jékki-jékki takk kooku doo la musa bàyyi mm-hmm. kooku toujours yaa ngi ci guerre boo xam ne du jeex boo xam ne exemple bu éternel lay doon wala nga jékki-jékki ndaw si boppam bëgg la sonal wala bëgg la tappaas wala bëgg tas ak yow loolu mënoo ko xam bu ko defee mu teg la lu mu lay teg fekkee da yoom xam nga doo ñemee wax parce que góor loo dëgër dëgër dëgër soo commencé yoom rek sa jabar la mhm. su ko defee da lay laaj baat fekk am na feneen fu dem loolu daal yooyu yëpp yu ñu dajale soo ci bëggee am lu leer da nga ñuy woo ñu la lépp luñ ci gis ñu wax la ko su ko defee nga tàggal ko stress amul lu gën a nekk stress. di mhm. xool sa soxna mënoo ci moom dara. dëgg la di xool sa soxna mënoo ci dara oustaz xam naa fi may tëjee dernier point bi. mooy wàllu nopp hmm. gars yi dañ ko yombal trop trop trop trop trop koo gis dal laa damay nopp ñuy yore ak fas ñuy yore ay morso ñuy yore soble ñuy nen da ngay dem ba finalement doo toog xam yow mi am soxla soo ci kan nga war a jëm waaw ñun nopp bi ñu am moom la ñu gën a gëstu parce que gis nga jamono ji ñaar moo soxal doomu aadama yi hmm. mooy que fu ñu wéree ñu mën a sëy fu ñu sëyee ñu mën a am masalan doom ñaar hmm. yooyu la te yooyu yëpp jigéen mënu ci génn moo tax nag bépp xam-xam te boole woo ci noob dafa mel ni que da ngay caaxaan. dafa mel ni ko dooro ko ba tax na lu jëm ci wàllu noob xam nga fas. kawaru fas ñun lañ koy defaree. karaw fas yaakaar naa soo ko dégg. déedéet ah baax na moom lañ koy defee nopp fu ñu ko defee nopp fu ñu la takkee nit ki rek doo rëcc. ku xam secret dëgg-dëgg xam baatin dëgg-dëgg li ma wax fii foo dégg daf ma koy dëggal kenn du ko weddi te loolu ku ko weddi nañu seet ci fu ñu ko kontakee si kattanu yàlla suñu borom mooy ku jege ak ku mën a doon ko munti doon muy ko jege muy ko sore muy ko ñuul muy ko weex soobee yàlla sunu borom fu ñu la ko noobalee di nga xam ne kuy làmbat ak ku mën bokkul hmm. oustaz mu ngi noonu tey dama la këf sax da nga ñëwoon ndakaaru am yitte ñoo fi doon dox ci famille bi te mënta ñàkk hmm. ma ni man xaaral ma profitoo ah gëlaale sama waa ji waaw ndax bëgg naa li may mos nag ak di ko ñam man buur yëre naa ko ñëpp wax dëgg yàlla waaw noonu la buur maa ngi yow dañoo yàgg <laughs> te tamit su fekkee comme li ma waxoon dafa amoon gëstu yoo xam ne ñoo ngi koy def hmm. soo ñoo seet si la pour gën a dimbali doomu aadama yi rek la dimbali doomu aadama yi ci wàllu xam-xam doo nguufaan loo xam ne dañ njëriñ askat nga toog di ci seetaan su ko defee dafa mel ni que da ngay iñaane euh, mm. doomu aadama yi xam-xam mm. te xam-xam déggoole même fu la nit joxe un million deux million trois dafa wecceeku lañ koy wax mm. kenn mënul jënd xam-xam parce kenn xamul nag nga daj ba am xam-xam bi waaye nag képp ko xam ne nga am nga nga bañ ci rus foo ko tegee si kàttanu yàlla sunu borom saafara def suñu kémp lay kàttan oustaz ñu ngi lay jaajëfal waaw sant baax di la gërëm di la gërëm mm-hmm. ak sa projet bi nga tàmbali yàlla gën ko yaatal internet yi képp koo am ne am na soxla ñoo ngi ñaan yàlla soxla bi yàlla na ko yàlla faj képp ku ñu yàlla di boolal ñoo ngi yaan yàlla koo xam ne dañuy dañuy faj soxlam ku fekkee koo xam ne duñu sax faj soxlam yàlla bu ñu yàlla booleeg moom amin wa yàqu yàq sa